ko bëggee woon moom Mariam. nee na Mariam moom nu mu ko bëggee woon. noonu lañ ko defee. nee noonu la ko yàlla defalee. noonu lañ ko defee. nee noonu lañ ko defee. bi mu dogee diggante midi euh, diggante treize heures quatorze heures. nee na mi ngi dog diggante treize heures quatorze heures. ci la waxtaan ak famille bi. nee ci la ñuy waxtaan ak famille bi. xool fu ñu koy denc. xool fu ñu koy denc. ñu denc ko fa. nee ñu denc ko fa. fii ci yoof ñu décidé denc ko disseteur heures. ñu jël dogu si denc ko 17 parce que jàmm bu génnee àdduna. nee na bu génnee àdduna. li mu gën a yàkkamti. dem ci ki ko bind. dem ci ki ko bind. mu doon ko wétali. mu doon mooy suñu boroom ku fi ne rek. nee lu fi nekk rek. ak ku fi ne. ak ku fi ne. yàlla la bind. nee nga di ko wétali. da koy wétali. te wéetul. heure bu la soxlaa. dana la jël. yoonam. ci yoonam. yoonam. yoonam nag. il faut ñu gëm ni. nee na il gëm ne. te xam ni. kii ko jël. i yoonam. yoonam. te du moom dong la jël. nee na te mu nekkul Marème rek la jël de. ana yaayu Marème. nee na ana yaayu Marème. ana papaam. ana baayu Marème. man mii di wax an sama yaay. nee na moom Aline ana yaayam. an sama papa. ana baayam. Ah, Marème fee mu tëdd. nee na Marème fan mu tëdd tey. man mën naa am maqaama. Aline nee na maqaama. ak yaakaar. ak yaakaar ni du ma ko fa fekk. ba du mais du kon du ma nit. nee na kon du nit. Ah, ba tax na. dañ koy gàttal. nee dañ koy gàttal. wax ji moom. nee wax ji mooy. gàttal ko. nee gàttal ko. moo gën guddal ko. guddal ko mais leeral ko. nee leeral ko nag. moo gën lëndëmal ko. moo gën lëndëmal ko. maa ngi wax ñëpp. nee na ngi wax ñëpp ne. ñu leen di yeewi. ñu leen di yeewi. parce que jot amul. nee jot amul. taxawaay bi rafet na. taxawaay bi rafet na. déplacement bi rafet na. maa ngi gërëm ñëpp. nee na ngi gërëm ñëpp. ku lim. nee na ku doo juum. waaye di nga desal. waaye nee na dul matal. suba. nee na mu ko bëggee woon moom Mariam comme ni mu ko bëggee woon yemale yëpp ku ci am jot ñëw ñëw jàppale ñu jàppale leen ci ñaan gi ci ñaan gi ku ci amul jot ku ci amul jot fa nga toll fu ne yàllaa nga fa te loo def te loo def ci lu baax ci yàlla mën na ko nangu yàlla mën gërëm famille am nee gërëm famille Mariam yëpp bu baax ci taxawu bi ci waaye gërëm leen yàq ko la parce que loolu seen devoir la nee leen ñu def seen devoir la ku def sa devoir nee na li nga war a def li nga war a def waaja way na nee na li am rafet li am rafet na su amul woon su amul woon mu ñaaw ba tax na mu ngi yeewu ñëpp nee mu ngi yeewu ñëpp parce que parce que. mi ngi guddi. mi te jot amul. te jot amul. te comme suba am na. ne te ginnaaw suba am na. ci kattanu yàlla. ci kattanu yàlla. te ci la yëpp di yem. ci la yëpp di yem. ku jàppandi. ku nga ñëw. na ñëw. bokk ci ñaan gi. bokk ku jàppandiwul. fa nga ne. fa nga ñaanal ko. nga ndax fépp. fépp yàllaa nga fa yàllaa nga fa alhamdulilah. waaw comme ko gisee rek yéen ak ñun ñoo si bokk yam Nder suñu grand la suñu père la donc euh, lu mel ni bu amee segam euh, euh, bànneex bu amee ñu bokk ko bu naxaar amee aussi dañ koy bokk ak moom quoi. bon man na ah, boo xamuma woon ki pour dire vrai xaw ma woon ah, soxna si mais Nder moom suma grand la ki ma informe lii sànq euh, ku Europe la nekk ku jigéen daf ma wax ma woon ki Alioune Nder wax ma soxnaam dafa décédé ma ne ko man yëguma ko man xam ne yu mel nii du ko bëgg di publier comme man j'ai l'habitude su ma gisee yu mel noonu muy bànneex mu neex dama koy publier parce que ñëpp ay doomu aadama lañu. donc euh, ma ne ko du ma ko publier xaar ma wo Almender mais ma ko woowee sànq nag ndeysaan euh, ma sentir ne sax da doon jooy sànq ay euh, ay quatorze heures quinze heures par ci la ma waxee effectivement loolu la donc enterrement bi 17 heures la moo tax tey ma ma ma ma ñëw quoi. non xam nga ku ne xam na ni soxna moom dafa dafa nekk koo xam ne kenn la ko quoi ko jege la lool lool lool ndax damay faral di wax ni à part say waajur moom. sa soxna mën naa ni mooy nekk sa première xarit donc tey ndeer ku ne xam ni ku baax la donc euh, lu mel ni bu amee mu nekk lu metti nag xam nga xam nga xam nga ki àddina moom yëpp ñun nag àddina ñoo ànd lii ak àddina ñoo ànd ma xoolee ndeysaan mu nekk ku waaw ku affaire bi tuuti trop quoi après sax dafa mujj sax raccroché dafa ne ma d' accord d' accord d' accord léegi ñëwal wax ngay sentir ni que vraiment mu ngi wax ak ak ak ak xol bu xool bu fees donc loolu la rek mu ko ñaanal yàlla aussi que xol muñ moom ndeer di ñaanal aussi euh, euh, euh, soxna si yàlla xaaree ko àjjana quoi. bu ku baax la ni mel si man la mel si ñëpp ah ni mel si man ñëpp moom boo xoolee tout le temps dama koy woo des fois sax ma jël ndeysaan ay affaire am woo ko téléphone ni mu nekk nit ku baax ku rafetlu vraiment génération bi nga xamante ni ay ay ay ay ndaw lañu te topp ci moom ism tout xam nga ndeer ngay dégg ñu ne la amul ak kenn benn problème ndeer xuloowul xeexul ñëpp xam nga. boo waxee sax ñaari minute rek nga gis Nder jooy donc am na relation bu rafet bu am ak ak les artistes surtout ñi nga xam ne ñun ñooy seen i rakk ko donc loolu di ko defal ko ñaan yàlla aussi jàmm ah. ndax lii moom vraiment euh, ku ne méttiwul rek dafa la dalul ko parce que temps Marème moom yaay Fall la. jigéen bu baax a baax a baax la. vraiment man lu ma xam si moom mooy day jàng alxuraan. Mhm. te waxtu julli du ko raw. Mhm. mu nekk nit ku baax. barki Seydina Mohamed. yàlla na ko yàlla xaaree àjjana. non au fait temps Marème yaruma temps mi moo ma yar mais temps presque comme moo ma yar parce que depuis may nekk xale damay nekk si këram euh, mosuma gis si moom bët bu ñaaw bu mu may xoolee wala dara bi may nekk xale bi may nekk xale mën a ànd ak sama frère yi ñu ànd dawal dawal vélo dem ba këram du ma gis benn yoon benn benn kii bu ñaaw bu mu ñuy xoolee wala dara waañ bi damay dem lu ma neex laay tibb lu ma neex laay def kon donc sama yaay la yàlla na ko yàlla xaree àjjana si barke alxuraan mënuma wax nag quoi damay dégg fan yi benn nit di wax ne yàlla wàcce na graduellement alxuraan ci yonent bi dëgg la waaye soo demee surat rahman ci ngay rendre compte ne que ci benn faction la yàlla roofee alxuraanu karim bi yépp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soo ko xoolee arrahman allama alquran d'abord balay xalaxal insaan di ñëw yàlla moo roof yonent bi alxuraanu karim bi yépp doog nag sàkk doomu aadama parce qu'il voulait faire de du prophète sallallahu alayhi wa sallam le témoin privilégié jamono bi muy sàkkee doomu aadama moom sunu borom donc imam ci turu famille bi ñu ngi remercier képp ku fi ñëw lar bi moo ma jox ndigal parce que man ci kër gi laa bokk li ma lié ak ñoom dafa yàgg benn témoignage lay def du ma tudd kama la xew mais Pépin xam na dafa am nit ci jamono mu am tartar bu metti mu am lu ma ko lebal bi ma ko lebalee mu xat-xat ya jógul ca moom tey lay doog a wax li tax fayeekuwuma ko ba tey bi ñu demee ba xat-xat yi bëri ca moom dama jékki-jékki rek sama téléphone sonné benn bis muy Mariam géjoon naa déggante ak moom ëppoon na fukki at mu ne ma lenn laa lay ñaan en tant que frère et sœur waxuma nga may dele kooku mais dama bëgg ngir cofeel gi nga am suñu diggante suñu famille nga teg loolu ci suuf ma seede loolu tey ji ci penc mi ngir wane mbaax te boobu laa ko gëj déggaat it donc ñun tamit am nañu wàll seede ne ki dem tey jii ku tedd la woon ku baax la woon ku yiw la woon mais seen yaay à seen yaay imam al dafa wax ne xale su doxee ba génne jikko bu jaaxali nit dellul ca soowu ndeyam ñu ne lu tax mu ne soowu ndeyam lañuy wal ay jikko ndeyam def ko mu nekk likit xale ba ndàmp ko donn ndeyam ci ay jikkoom yéen nag yéen ñi fi nekk ak ki dem donnu ngeen seen waajur wu jigéen ci muñ ci taxawaay ci bëgg yàlla ci fonk doomu aadama noonu ngeen jàppee seen dund ba bis ni yàlla tey gërëm gi nag gërëmu famille bi su fi seen yaay nekkoon tey jii day jël yëpp Asia seede la Amina mais seede la Pépin mi seede la dina jël gërëm bi yëpp teg ko ci loxo Zubida yaay jàmbaar yaay jigéen bu mën góor yaa taxaw te musoo onk famille laay wax musoo onk uuf nga njaboot gi bi fi seen yaay nekkee musoo daw musoo raf maa fekkee li may wax démb la démb la démb la donc Zubida ñu ngi ñaan yàlla mu mu yëkkati la mu yokk la mu sàmm la aar sa njaboot ñi fi desit yàlla sàmm leen bis bi bisu seede la te am na boroomi xam-xam yu wax ne bis bu mel nii su amee seede yi nga xam yéen a koy seedante seen biir ci lu baax yàlla mun na ko yokk ci seeni i dund moo tax ñu am yaakaar bu mag bii Alioune nag fi may daanele mooy su la neexoon yow man ma taxaw ne la la waaju mag ja waxoon te mu jur nag controverse ca wax ja dafa am waay ju takk soxnaam xayitam intime mhm. ñu ne ko diw takk na soxna mu ne takk na xàcc ba ñu ñëwee wax ko xarit bi mu ne banaa kii àdduna ak àllaaxira ndax li mu wax sama soxna si ma takk mhm. ñu ñëw wax ko waa ji mu ne duma tontu tey mais dinaa tontu àdduna di daw ndaw sa mësta fay mësta xuloo jëkkër ja mhm. doom juddu fa màgg fa nekk fa avocate ba ñu sampal ko war ko defal noos waa waaje yëg ko ne tey lay tontu dem ci xew ba ñëpp di ko ŋóobi mu taxaw neleen leen maa waxoon ne diw mii mu takk xaj la te tey laa ko gën a wax ñu ne lu tax mu ne ndax jikko yi mu làmboo yi xaj làmboo xaj su yuuxoo rek ki ko moom moo nekk en danger saa yu ki ko moom génnee su ñëwaatee xaj bi yeesal njébbal ci moom saa yu ki ko moom su ko jëlee takk ko ci buum si morso sànni ko fu sori balay fajar jot xaj ba ñëwaat fa waaj a ne moo tax ma ne Alioune ki nga takkoon ku seede ci moom it yow rek lay dimbali ci seede yi nga xamante ne wax nga ko ci moom ba noppi ñu ngi sant imam ci sa taxawaay ca hôpital ba ca cimetière ba ak kàddu yi nga yëkkatiwaat fii delloowaat nit ñi ci yàlla sallallahu alayhi wa sallam honneur munta passé yàlla créé ndox bu bu lewet ak ndox bu saf xorom ne ko yaay yaay barrière eh, yaay liñ invisible bi marajal bahrayni yaltaqiyaan baynahuma barzakhun laa yabghiyaan mu ne yaay barrière invisible bi kooku nag suñu yaakaar ci moom la ne moom sallallahu alayhi wa sallam ku fi yëngu sa yaakaar it ci moom la ne cheikhul xadim dafa wax xadin sarrafat xaaji ila fatihi ratxi wa indi law abdul wali jaada bi itxi su ko waxee kenn rek moo tax mu wax loolu muy yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo dal Seydi Haaji Malick dal Seydina Limaamu dal cheikh islaam islam ca yaakaar boobu ñu am ci mag ñu baax ñi yaakaar boobu war naa tax képp kuy sénégalais ak foo mën a ne nga wëy di am yaakaar bis bu ñu la yàlla suñ la dugalee ci biir bàmmeel bàmmeel a xat mais aka ci kii sax ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn physicien belge dafa wax ñaar yi foofu lay daaneele kàddu bi benn bi mu firi inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima dafa am wax bu am solo bu mu ci wax mu wax ne yàlla ak i malaykaam malayka yi nag soo leen di xayma ni ñu toll dafa mel ni yàlla yónni woon leen ne leen kenn ku ne na jëli ci ñoom benn pepp suuf nee na suuf sa dana jeex te malayka yi duñu jeex ñoo ñu la àndal julli si gën gi mindeef sallallahu alayhi wa sallam ba ca topp nag surat naj naj mi la nekk imam bi jibril alayhi salaam jël see sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam li tax ma daanelee waxtaan bi fii mooy suñ borom suñuy waxtaanee gën gi mindeef sallallahu alayhi wa sallam malaayka yi dañuy wax yàlla diw ak diw doomi diw doomi diw ña ngay déglu waxtaan bu màgg boo xamee ñu ngi ko jagleel gën gi mindeef sallallahu alayhi wa sallam ñu wëlbatiwu kenn ku ne di la récompenser donc foofu lay daanelee waxtaan bi di santaat mbooloo mi ci ñëw bi ngeen ñëw fii Pépin wax na ma léegi ne ma lii xew nii ci ndigalu Alioune Mumbaay du ci am ku ñëw jaale jaato toog soo nee ñaanal ko yàlla ndax moom dafa jëloon dundam delloo ko borom bi moom Mariam mi dem delloo ko alxuraanu karim ku ñëw na ko ñaanal ñu moytu ci jamono bu mel ni toogante si suñu biir te dëj moo ñu fi indi di wax lu suñu yoon nekkul c'est capital fu ñuy daanelee mooy ñaanal suñu réew des ci jàmm loolu la ñuy ñaan réew mi des ci jàmm ci barke yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam alxaqu min rabbikum fa man chaa fal yuhmin wa man chaa fal yakfur wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu